ñun ñëpp ay sénégalais lañu euh, muy Manko muy benn Bokk Yaakaar ñëpp benn lañu donc euh, lu bureau yu génnee ci urni yi daal lu ñu génnee ne diw moo gañe rek ka ca nekk euh, ña ca des war nañu accepter loolu waaw ñu xam ne démocratie la et puis ñun ñëpp benn lañu gisuma ci lenn loo xam ne kenn warul nekk fi di xiroo ak ngaayoo li urne joxe loolu la jeex man ci sama xel noonu laa jàppee. ah mais man li ma ko gisee mooy élection yi dara leeru ci parce que élection day am jongante bu ñuy wax élection kay pour beaucoup de partis parti yoo xamante ne bii y avait quarante partis xam nga mais yaa que une seule partie moo xamante ne bii moom rek moom mooy wax xalaatam moom rek moom mooy def moom rek mooy dindi mais démocratie amul contestation yi c'est vrai quoi oui gars yi ils franchement dañoo sàcc élection yi Ouais, parce que mënuñu gagner de de Dakar franchement loolu moom mënul nekk quoi et puis je suis d'accord pour ñu def le tout tout tout pour régler le problème bi mais lui, c'est pas normal du tout Ouais, franchement loolu moom laa si gisoon quoi franchement xam ni moom élection yi jaarul yoon waaw il suffit pas nga jàng wala nga que jàng mais beaucoup les nous mu demee rek par rapport à l'élection, il faut que pas ça soit bien passé. ça ne s'est pas bien passé.